jàmbaar ju mag jafi woon bàyyi aatu jaañ naara asalaamaaleykum wa wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp rawatina bokki taalibe yi bëgg sànni ay kàddu yu gàtt yoo xam ni kàddu yu fàttali ko rekk la ak soññee li ñuy fàttali nag xam nañ ni sax fàttiwuñ ko waaye nag la Seex Abdul Ahad waxam loolu la ñuy jëkke mooy ko jëf ci sëñ Tuubaa murid yee la war a sant murid yee la war a fay te ki ni bëgg a fàttali nag dafa jëf ci sëñ Tuubaa jëf ji ñépp gis gannaaw bu mu ci bokkee dafa jëf ci sëñ Tuubaa jëf joo xam ne ko am ñaari bët tey gis rek xam nga jëf ji mu jëf ci sëñ Tuubaa yaa ngi jàkkaarloog moom kooku moo di kan mooy sëriñ aatu Diagne di jiite woon daayira Hizbut Tarqiyyah jëf ci jëf jëf fi jëf ju mat sëkk koo xam ni kii ba mu jàngee ba noppi ba ay diplôme yëpp mu am ko dafa jël diplôme yëpp jébbal ko Cheikh Abdou Lahad ni fasut yéene liggéeyal liggéeyal kenn ci àddina ku dul Sëñ jot na caa fayeku sax benn salaire te booba salaire ba xawoon na tane ndax boobu matoon na 600 mille bu doon ci jamono léegi ji mu ne foofee ba léegi ca ñi gën a kawe la bokk ndaxu njàngam mayoon na ko ko mu fab mu fab lam jot a fayee ko ak lépp dikk jaayante ni du lëggeel kenn ku du sëñ Tuubaa jox ko Seex Abdul Ahad loolee nag mosu caa wàcc tànkam benn saa wala benn waxtu ci guddi gëm ci guddeem ak bëccëgam ba ni mu wujjee borom tabaaraka wa la fekk sëñ Tuubaa ci li ci liñ mën a seede muy seede soo xam ni ñaari malaayka yi ñu seq xam na ni nii ñu ko waxee noonu la amee te ñeneen ñi ko fekkiwut te dëkku it ñoom fañ toog kenn ku ci ne mën ngaa seede ni fii la tegoon tànkam ba na mujjee borom mu mu ko nag lu bari ci noonee mu jaayante woon ak Cheikh Abdou Lahad ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa mu jural ko lu bari jural gi mooy nettali woon naa ko fi danaa ko waxaat fii ci bisam bii ñuy waaj a dëgmal incha allah mooy Sëñ Abdou Lahad daf ko wowoon ba ñëw mu ne ko aatu wooli ma sa baay El Hadj Ibrahima Diagne man newoon gaay mu ñëw sëñ bi yendoom fii ci kër gi. ba ngoon jot mun ko demal woo sa baay mu ñëw ko mu dikk bokk toog mu ne ko alaaji Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko aatu mii de xaw ma gërëm nga ko mu déet waaye man de gërëm naa ko mu ne ko Mbàkke de ngërëmul aatu mi ngi tàbbi ci si biir ngërëm ko gërëmee rek laa mu ne ko tey jii nag daam yu ma bëgg aatu mi dama bëgg bu dee ko ñuy jaaye nga jaay ma ko bu dee lu ñuy saraxe yalwaan naa la ko bu dee lu ñuy maye ñaan naa la ko mu ni ko boole naa yëpp ak li ma ci am lépp jëbbal na ko mu door koo tàmbalee liggéey loo nag liggéey boo xam ni amoon na tàmbali waaye amutu pàpp te lépp lu mu mas a xalaat ba mu ko rek danaa wax ni euh, su ma ko joxee art rek na ma ko bëggee danaa danaa ko ne amee euh, mbind mi nga gis ci ay nu raxmati mbind mu ndaw la woon kere ba mu koy def ba mu koy deflu yàlla dafa def sëñ jiiri mii la woo ba ñëw mu ni ko demal bindal ma xasida yi Eh, ndax dama koy def ci ay nu raxmati su ma ko joxee aatu rek na ma ko na bëggee danaa ko raamee gis nga ko noonee noonee tey loolu mooy sabab bi xam naa ñun ñu sax duñ xam la ko waral bi ñu àndee ci seen àndin woowu nag bu dëgg woowu nga xam nag aatu musta boole sëñ Tuubaa dara ba ni ko suñu borom wàccee yàlla def nag muy dox ca noonu dox ca noonu dox ca noonu ba mu yàgg loolu sañ bi nag kuy natt nit la bu la nattee ba xas la téye dootu la baati ci ci kaw suuf waaye bala laa téye nag dana la càmbar ci bët ju ne ba xam ne sa xol bi dara raxu ko loolu sëñ Tuubaa mu doon laa téye nag bu dee la ndikk nag dootoo ko rëcc ci noonu la noonu la daa doxee loola nag moom la dox ci digganteem ak moom ak ñi mu ko seqal ñëpp nag daana ca bopp ba euh, dox doxin bi ñi mu ko seqal ñëpp ñu ànd ko waaye nag euh, dafa am da ci am jaglek boppam koo xam ne yàllaa ko ko may jagle gi mooy nettali woon naa ko mu wane ko Tuubaa belal téye ko fa ay fan mën naa ni bis la ba bis bi delsi bis bu njëkk ba mu fa amee ay fan mu woo ko mu ñëw mu ne ko demal ci néeg Seex Baara Xureej mooy néeg bi jàkkaarloo ak néeg bi suñ bi wàcc liggéey boo demee da fa fekk bitéel ca digg róom boo demee nga ne ko secc naam te fekkaat mu def mu def ko mu bàyyiwaat ba bis ba delsi mu waat ko mu ñëw mu ne ko dellul ci néeg Seex Baara Xureej boo demee da nga fekk bitéel ca digg róom ba nga ne ko secc naan te fekkaat ma fi ba mu ko defee ba dir si nag mënu ko ñëwal yewi ko dama la doon suudee ak sëñ Tuubaa te suudee naa la ak moom ba loolu yi aatu am na ko ci Cheikh Abdou Lahad nett lewoon naa ko maa ngi koy nett lewaat fii di ko feddali ci tënk rek cër yu mel nii ku ko am ci ci sëñ Tuubaa liggéeyal ko sëñ Tuubaa ba àddina sépp teg ci bët la ca des nag taalibe bu nekk am na njukkal lu mu sa jigéen su lu war sa jigéen tegu mooy kenn waru koo fàtte ci ñaan kenn ku waru ko fàtte ci taxawaay njabootam nag moom ni mu ni mu joxewoon boppam sëñ Tuubaa rek noonu la ko sëñ Tuubaa di taxawula njabootam ndax ñun ñii tey sëñ Abdou Lahad bi muy wàcc liggéey amul lum nu baaloon ci kaw suuf dara amul ci kenn koo xam ne kii mën nga ni birigub ciment bi sëñ Abdou Lahad ma ko tewal wala dépasse bi sëñ Abdou Lahad ma ko joxaloon wala téeméer bi sëñ Abdou Lahad ma ko joxaloon mosu ko def mu defoon dafa fa bon léppam jox ko sëñ Tuubaa banoo ko sëñ yaakaar naa loolu rëccuwuñ ko léppam ba mu jeex la joxoon Sëñ Tuubaa waaw ndax maanaam euh, dadaa wax ni adduna euh, du ko fàggul kenn ku ne mën nga koo fàggul sa waaye la ma def sama jom nag ëllëg gën jëm kenn tane leen fa dara loola laa jom tegaat ca ni li jafe di am ngeen ko muy fondement ndax lu ma mës a lëggeel Sëñ Tuubaa yéen laa jiital ca biir ko amu mag nag tegal tegal a des tegaat ca ni leen fi bàyyil alal de waaye li ma leen fi bàyyil ku leen mere ak ku leen soxore ak ku leen añaane du ca man dara daal di yëkkati loxo loolee nag agsi na ci nun noo koy dund noo bokk wàccuwaay bi nag ak doxin bi ndax weesu wutoon fab léppam jox sëñ Tuubaa yéen it seen daa fab léppam jox ko sëñ Tuubaa ba leen ak sëñ bu leen jaaxle bu leen jàq leen tiit xool leen fa mu tegoon tànkam ngeen teg fa seen tànk bu ko defee adduna ak àllaaxira sëñ Tuubaa féete leen loolu laa laa leen di soññee di ko soññee nag mbokk yi digal naa ko seexu naa mii seen mag waaye ginnaaw ñëw ngi leen digal yaatu na yéen ñëpp la boo gisee Seexuna mi ma téye ko euh, Sëñ Abdu Lahad rek lay xool ndax moo jëloon waajuram joxoon ko baayam te koy jox baayam it man mii la ko booleeloon jël doomi Sëñ Murtala jox mu boole nu ci biir kërug boppam di defal nu ngan ka kon moom xamut li ma booleeg moom sax moom xamu ko waaye man xam naa ko waaw noonee la noonee noonee la demee woon daal dinañu ispi yii nañuy jàngi xasida yéen ñii dem leen wàcce kaamil alxuraan ci biir man mii la woon farlum sëñ Murtala sëñ Mor May ñun ñun ñett ñi alxuraan lañ doon wàccaloo ñu bokk ak ndey Seexuna mi benn bis ñoom mu leen jàngaloo ay xasaay loolu mooy boole la loolee nag aatu ci tànkam teggu ci tànkam bi bi ma mujjee gisee moom ak bi mu wàccee liggéey matul ñaari semaine li ñu tëjee suñu waxtaan man ak moom wax ju yéeme la ndax daf ma ne sëñ daan man kaa man ma seq na ma ak sëñ Abdu Lahat loo xam wax na ma loo xam. yow mi mu jur su ma la ko wax nga fiire maa moom ni ma ñi mu bokkal sëñ Tuubaa su ma leen ko nettali woon ñu fiire maa moom du ma ko wax mbindeef nag ci kaw suuf loolu deux semaine la moom wàcc la bi kon nag am ngeen waajur woo xam ne jàmbaar la kere bañ ko tëralee waxoon na ma baat boo xam ni kere bañ ko tëralee fii di ko jullee baat ba dafa delsi ci man dama ñëw isbitar xëy am lu ñuy waxtaane man ma sëñ daan man kaa man ma boo fekkee aatu mu ni gàng tët mu wóor la ni aatu mi dee na xam ne jàmbaare nga ñu ko gëm sëñ Tuubaa ko yëmale sëñ Tuubaa dara ñu loolu mën naa ko seedeel nax moom ma ko waxoon ci làmmiñu boppam kon nag yéen adduna amul solo moom mu mu tey bàyyam faggulu ko woon dara muy aatu lu mu am dafa fab léppam def ko sëñ Tuubaa ba jax ca tàkk kon nag yéen it def teg leen seen tànk fa ko seen taalibi bu nekk am nga njukkal lu war sa digg ak moom ñu ngi koy soññ ci taalibi yi ci njàngoom alxuraan ak xasida ak ñaan yàlla ak lu ci mën ci lu baax loo xam ne dana jariñ ko dem di ko dolli fa mu nekk ñu defal ko ko waaye ñun xam nañ ni ci sunu wóolu sëñ Touba gëm ko lam doon sàkku ci sëriñ Touba ba mu duggee bàmmeel teg na ci bëtam te day dolli ko te du te du te du dakkit ba ba saa di taxaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñi mu bàyyi. te xam na ni sax dañ koy ñaan yàlla waaye sunu boroom teg na ci yéen loxo sëñ Tuubaa dana teg ci yéen loxo ngir fab gum fa woon léppam jox ko sëriñ bi waaye gën leen a góorgóorlu te wéral Pastef yi te dëggu te góorgóorlu te ngeen boole seen bopp def benn tey dakk ndigalu sëñ Tuubaa di ko diir waxtu wu nekk fu mu ne ngeen fexe jaane ndax duñ leen ñëblu ci dara ndax suñu wajur muy si ñëb laxat musta ñëblu seen wajur ci dara ndax lim bopp bopp ñu nekkoon tam xam fañ jëm moom danañ ko daa wax sax daa wax ne am bari na ay yëngu yu mel ni yéen yu ñëw fii du ko tere sax waaye du ci ron dara yéen ñii nag damaa xam ni ñun ñu jëm fenn ngeen moo tax su ma leen séenee ngeen di ñëw ma seen dara lu ci yéen bala ma am jàmm dama ko dindi ba mu loolu wax na ko ñoom ñëpp naraaraan ay yoon yoon nee na leen itam dëkk ba ngeen jëm ma nga nee may seen feek ngeen di àgg ca dëkk ba bu leen nday woo bu leen ko wuy bu leen waay bàyyi bàyyi wooyee bu leen ko wuy bu leen xarit wooyee bu leen ko wuy bu leen bu waaye bu fa àggee nag ñëpp a ngi leen faa fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàmm ak ndam ak sutura wér-wér le mujj yàlla yàlla na ko jox kii bind wi saara. innaari